sëñ bi moom ku ne lañ mën a nax dóoru jëm de sëñ bi daal man nga am ci kaw mais doo am ci biir yooyu moom sëñ bi dëgg xal la ku joge lakk bëgg lakk bañ lakk mooy sëñ bi la ca biir nag moom yaa ngi moom la te moom du benn nopp sëñ bi waaw kenn du benn nopp kenn mënu fa yàqal kenn moo tax mu gën maa neex du benn nopp waaw loo en en nit mënu ko fa yàqal moom daam waaw loolu loolu dafa am benn kii <laughs> lu sew lu ma ciy leeral xam nga bu ñuy wax euh, jëmmi bokkaale kee moom da caa jël sa boole xam nga nun lañ jàppe nooy bokkaale noonu nun ñu ko bëgg lañ jàppee ñuy bokkaale euh, yaakaar naa yàlla bindul ko am fitu di ko tudd di tudd lu ko nuru moom nun ñii nag jeex ci moom nga xam ne xameetuñ gos wala droite ngir moom nun la ñuy wax waaye ñoom waxtu woon yégee ne ñi ngi jàpp ne keneen am na ku dul yàlla ñoom ñoo bokkaale ñoom waaye nu nax dul lazina laa naluusu abada illa bi rabbina huna duma xada bu sëñ bi bind doon dara luñ sukkandikoo lu mooy rek bind lahul wujudu ladi qad saanahu qidamun mahal baqaa'i wa xayrullaahi lillaahi mu doylu waaw loolu defe naa fi la wéetal yàlla mën a yem mm-hmm. yonent bi moo gën a rëy gën a màgg barki démb rek maa ngi ciy waxtaan ak Cheikh Abdou Samad moom son yi maa ngi koy siyaara bu baax di ko nuyu. amiin barki rek ñu ngi ciy waxtaan. ci bi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaa man bi am daahi taatini al bushar yaa Moustapha yaa rasulullahi yaa Bachar. nga xam ne ci tagg gi ma lay tagg ci laay amee mbégte yi may bëgg yépp yi may sakku ci ngëneel la mbégte ci laa ko amee. indil ko garaat yi mi yaa Moustapha yow mi nga xam dañ la tànn yaa rasulullahi yow min yónni waaye nag li muy réy réy jaareelu ma de yaa Bachiru mbindeef nga de doo yàlla de <laughs> ki wax loolu rasulullahi kay keneen taxul lay wax hmm? yaay Moustapha yaay rasulullahi waaye yaa Bachiru de hmm? sëriñ bi léppam day suñ borom hmm. lépp lépp sëñ bi sunu borom la amul lu muy settee ci boppam lam jàppee boppam it waxtu wu nekk mooy jaamu yàlla buy jaamoo yàlla ca na ko yàlla bëgge waaw xam nga ñëpp jaami yàlla lañ mm-hmm. waaye jaamoo yàlla na ko bëgg na ko yàlla bëgge ku ko defal yàlla yàlla defal la loo foogutoon ne war nga koo am dañuy bàyyi xel ne loo jombale sëñ bi ci daraja xam nga Sénégal moom seen seen seen lislaam lu neex la. Mhm. fi ne arkaanul imaan yëpp mën nañ koy jàngale. gëm malaaka yi gëm téere yomal xiyaam nañ gën a yëpp nag ci napp ñi ci. Mhm. bis penc boo dee nangam nangam mais imaanu bil qadar gëm dogalu bu yàlla ne nii sëñ bi mel yàlla loolu seen problème. te saa yoo noppee gëm dogalu bu yàlla rek. Mhm. manqué nga sarti gëm. te inna allah ala kulli shay'in qadir yafalu ma yasha faalun lima yurid. léegi problème bi mooy nii sëñ bi mel boo nanguwul ne yàllaa ko ni def. léegi indi nga ñaari yàlla yow ndax léegi fu yàlla nekkoon ba sëñ bi mel nii <laughs> te ala kulli shay'in xadir day dàqu maanaam yàlla moo mën lépp yafaalu maa yashaa lu ko soob lay def mm-hmm. yàlla moomu la sëñ Tuubaa amul jënn yitte mm-hmm. ba connecté ci moom mm-hmm. connexion boo xam ne amul déconnecté soxlawul lu dul moom déet moom xam nga sëñ bi dafa jaar ci yoon yu war a jaar xam nga sëñ Tuubaa bu jekki-jekki woon rek ñu ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu nekk miracle boo xam ne yi mu jëf yëpp mais xoolal fi ñu jaar sëñ sëñ Amidou dafa jaar fi ñuy tudde fi doomi soxna yi di jaar waaw ba mu amee askan wu sell wu tedd ba noppi dafa jaar fi doomi soxna yëpp di jaar mooy wut xam-xam nga mën na jàng na ci keppaaru way juróom mën na jàng na ci keppaaru sàmba tukulóor ka mën na jàng na ci tafsir ndumbe mën nga ne jàng na ci sëriñ bu soobe nga mën a lim loolu mu daan bëgg téere di ko bëgg du ko am di joxe mbubbam ngir bëgg téere ah. di wër réew mi ngir bëgg lu mu fayee téere waaw lépp ngir jaar ci yoon wi ñuy wax ci yoonu xam-xam ba nekk géeju xam-xam goo xam ne ñi mu jamono teel ñëpp nangul nañ ko ne ñii kat kii kat jéggi na leen ci xam-xam ndax ci biir way juróom Serigne Mbacké Mor Anta Sali dafa nekkoon géeju xam-xam nekkoon université boo xam ne ci sowu jant ñu bare bari jànge nañ fi waaw te moom mujj na waxuma la mu nekk élève buy jàng ci daaray baayam waaye daa mujj di taalif ay téere ñu koy jàngale ci université baayam mhm. te baayam moom ña ko doon seeral bañ koy tagg mhm. dañoo tagg ne euh, muy ki jëkk a tagg sëñ Touba mooy mooy sëñ ma Kan Dingaraay moo jëkk a way sañ Touba mhm. euh, nga xam ne moom lii nuy wax naan kenn du sëñ béeg sëñ bay borom jamonoog réew mi bàmbaa ko moom ak loolu ba mu koy wax moom fukki at ak ñett la sëñ bi am bàyyi ma ngi fi sëñ Mbàkke sa sëñ Mamar Kan Dingaraay ñu bari nangu nañ ak wilaayatoo ndax jihaadal na Cheikh Omar Fouti yu ba mu gisee sëñ Tuubaa di ko tagg rek dafa daal di wax melo yi sëñ Tuubaa mel yépp melo waaw ak nosu jàmm ñi ni nekk ci ñaari tënkam yépp ba muy jeexal nag dana haada la Ahmada Bamba kaana walidaku bahrul ulum namiril i mawrub nga xam ne nangu na ne kon baayam géeju xam-xam la woon. Mhm. moom mu ne fa bay taalif ay téere sëñ Mor di jàngale téere yooyu ci biir daara ji. waaw ba mu ca noppee ferentulaay wut ndax bala ngaa sóobu ci yoonu tasawuf faaw nga jaar yoonu xam-xam. Mhm. ndax sharia ji muy lamboo. Mhm. ba mu dikkee it jël yoonu tasawuf ku mu fi fekk sa yëf daf la koo nangul. awraad yi fi nekk yépp mu jëfandikoo. ndax wird yi yonent bee ko moom ci yàlla la jëm kenn na ko moomul kenn ci wu ko pour ñaan saw wird da yoonu jëm ci yàlla la rek appayas bi dañ ko fee teg ku jëm Dakar du bëgg a dem te am paas sa oto baa yéegal la lay tee yegg ci yow lay doon baa nga jàdd baa nga wàcc yoon waaye yoonu yàlla ku ko sóobu yegg xeebul kenn ña fa nekk ku ne saw yoon dala koo nungul jaar ca sant la gërëm la nga fekk ci biir ay mbindam mu boole ko di wéetal yàlla guddeem ak bëccëgam suba ak ngoon négul ba am bijaa wala sikkinam génn mu tàmbali taxawee guddi di jaamu yàlla ci juróom-ñaari at la na ko ci Minanul Baaqil Qadiim te loolu am na naar bi ñoom Ibnu Mualla da a raw waaye saada tiflan day taxaw di naafila guddi te booba dalagul jàng sëñ Bachir na xoolal gi gaat nga bu rafet te booba dégg waareb soxna jaaraa ko ko yóbbee koo xam ne sa waajur dana naa min da bi saalihin ndax sëñ Bachir la law mun ne soxna jaara kat wa kaanat turabbi awlaadaha ala al muruati wa tahaara wa diin wa kasira ma taxki alayhim hikayatu saalihin wa taqul lahum bi da bi saalihin qiyaamu layl danaan yar njabootam wax naa gaa yu baaxee de la leen xamee woon mooy bu nit ñi nelaw guddi ñoom ñu jóg jëm ci seen seen borom sëñ Tuubaa teel a dégg taxaw guddi googu moom bu guddi jotee bu nit ñi fatoo ci seen i néeg moom mun a temm ci ëtt bi ba fajar te dalagul jàng mun a xool a gi gàtt nga ko rafet kon dafa teel a sóobu ci yoonu wéetal boromam di jaamu yàlla jël awraat yi ñu fi nekk yoon yu baax yi lu mu dégg lu baax lu nekk mu jël ko amul yitte mhm. ba def engagement boppam nag engagement boo xam ne moo ko may mu egg fi mu egg nga xam ne mës ta am jën yitte mhm. musul am génn bëgg mu jëm ci boroomam gis nga ba mu ba muy jël lu ne li ko sukkandikoo mhm. te yoonu bëgg a jëm ci yàlla yegg gaaw dafa jot ñaari ordre benn bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla booleel na ko léegi mënatuloo nekk ci ginnaaw kenn ku du rasulullah mënatuloo jëf sañatuloo jëfandikoo dara it lu dul alquranu karim mu daal di jóg nag jël engagement wax ne saarifan himmati li rabbi taala raajiyan saqyahu bi maa il muayn maasikan bil kitaabi maska dariri bi yadi alqaaidi albasiri almuayn léegi kon yàlla ñun jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jaare pour jëm ci boroomam jël alxuraan muy wirde wi nga xam ne duutu jëfandikoo dara lu dul alxuraan nga xam ne ba mu ñëwee Touba sax dégg nga dafa wax ne euh, euh, munsalixan fii jay seen min xayri rabbi min xayri rabbil wara xadimi usnil xayr munsalixan nga xam léegi dafa répp ci lépp léegi ba mu des alquranul karim waaye jàpp rasulullahi salallahu alayhi wa sallam mu ne nag léegi naa jëm ci sama boroom mu def ko muy sama yittee jëm jëm jëm ci boromam mu xam ne mënuñ suta jaar egg ci yàlla te jaaruloo ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam yonent bi salallahu alayhi wa sallam mooy bunt bi nit mën a jaar mu ne suñu borom léegi kon virage yi bu mu ma sonal aw fee ba yàgg maanaam moom déedéet léegi laa tajaalanna baynii bay baynaka abad waasitatan siwal muqaddimi sanad sama digganteeg yow bu fi kenn doxati ku du rasulullah léegi nag amatul jënn yitte amatul menn xëy amatul genn bëgg lu mooy yonente bi mais li tax suñ Tuubaa gañee li mu gañee ba tey ba tax mu egg ci yàlla te dara du si ba ne ilaa ilaahillah xad wasaltu wa an rasulullah man fasaltu ginnaaw yàlla da ko joxoon ne ko rasulullah mooy waa ji te rasulullah ngoor ñëpp ngoor lépp mu ñëw ci buntam taxaw yaa sayyidi yaa rasulullahi yaa sanadi indi la leen babikal musulu bil xoorat sang bi ku baax ki maa ngi ci bunt bi waaw bu ñu la ubbilee bismillah lépp a ngi fi luy sa bëgg ba tax nga ñëw mu ne ko lay sat liyeel yow hajatun wa minuha si waxti fay ka xapal xali wal balad aw ma jenn bëgg dara andiwu ma fi aw ma lu may seetantal lu may sa tànk bi foo leen teg boo teggee ma teg lay sat liyeel yow ma hajatun wa minuha si waxti fay ka xapal xal bi wal balad aw ma genn bëgg royu ma dara lu may roy la rek yow rasulullah royu xol ak royu jëm kon moom léegi yonent bi la roy te yonent bi mu jëm ci boroomam te borom bi ba muy wax ne nit ñi bu ñu bëggee yàlla bëgg lañ leen topp rasulaay xul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkumullah sëñ Tuubaa nag dàq kookee nag muy rasulaay daan na yaf na alladi min umri qad baqiya fi shukri wal xidmati insha rabbiya li wéy de xawma ko waaye li ci des kenn du ci am dara ku dul rasulullah bi shukri wal xidma rek cant gi li tax na ma lay sant mooy jagleel gi ma jagleel may xadiim ba war a mën a engagé la liggéey bi moo doon sama yitti comme engagé na ngir war a jëm ci borom mante war koo jaar ci rasulullah sallallahu Musaa xaaj ak dundam ñaari cër lii juróom weer waaye xoolaatal ba tey ba mu ne salaatu sitta bi matxi sitta te atihi batta ma ati saa yu ma xaram teroo saa yu ma sëppee sama xalima xasida gu mu bind damay tagg saa yu rajab teroo xasida gu mu bind damay julli waaye lamay may boole di tagg ko julli yépp maa saa yi nag ba tey uslul iqtifa imbaat rabbil la sharika la dama cay boole teg teg gi rek teg teg gi teg teg rek foo teg ma teg moom koy damay boole di la tagg naan la yow di la joxoñ na yaa moom di wax lépp waaye ma xam ne fa nga jëm laa jëm rek te kenn mënta jàll jëru ci yow fu mën na pecc tagg yi maa ngi la dang kon jël dundam gépp jëmee ko ci tagg yonente bi salaa salaam ci guddiyam ak bëccëgam daal di wax nag ne tagg gi ma koy tagg madaxtu xayral xalq min al muharrami ila intisaafi al aami daa takarrum mooy mooy mat bi waaye lahu salaati wa salaami min rajab te xal bi sil xijjati ni amal muntajab da ngir jëm gëm ñun ci yàlla nag mu ne ko lu ma lew ta dagan ma ma moom ko daa koy jaay bàyyee la ko ndax bëgg agsi ci yow kenn téréwul wakkut mu ne banaa ko kenn terewul toxoñu mu ne banaa ko taxam ci ko banaa ko bëgg doom ak alal banaa ko sama ruu moomatuma sama njaboot moomatuma woor lépp na ko juttalahul yowma bi ruuxi wal wa waladi wa walidayya fil xanal xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saati ila kurul rams feet ruu gaa ngi ak wàcc lu ma la géyati yaa ko moom jëlal doom yi jëlal taalibe yi jëlal alal yi jëlal sama ruu bopp saa yi way jub lépp jëlal yow rasulullah da seetu bara de kii ni mel ak fi de ku de ku ne am nga loo desal moom daa noor lépp jox waa ji li tax sëñ bi bi ñuy gañee gañewul lu ndaw mooy gars yi dañuy ful awaka kerkeraan naka longo mbaatoog léegi-léegi mu rëcc ak sëñ bi nag dégg nga ki yor yëf yi la ma yàlla joxoñ eh xul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni toog leen ko toppi mag yéen sama ruu juttu lahul bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fil alam bi xidmati min nafsi ila xuluuru ramsi ba feeg may nga may noppee gis gisuma bàyyeeti tàgg ak liggéey rasulaay salaa salaam mel ni lañ ne waaw yonent bi nag bi nga koy liggéey loo jublu mu ne duuna kas bin fii aji saa nag tey nag lu tagg yi rëy rëy lu may gi bari bari gratuite la sa kuuma ci dara loo ma ciy fayee man daal li ma yóbbu ci ma di la sóob ma di la tagg daxaa nii ilaa matxi nabi xobbu daati yi léegi ma bëgg gi ma la bëgg nag lii laa fas yéene garanti yow mooy am daxuhu bi nasr wa nidaami ma dumtu qadiran ala alkalaami diirub maa ngi mën a wax maa ngi mën a yëkkat sama kaddu yow rek laay dafa yowal lu ko waral li xubbihi li annahu xawla awla biya min nafsi allati hiya azabiya moo tax daraja bi gis nga dafa am benn résumé bu gàtt bu Cheikh Ibrahima Diop almachari def moo tekki lii ma lay wax. waaw Cheikh Ibrahima Diop dana sëñ Tuubaa dana jàkk sëñ Tuubaa yàgg mu ne ko fa jaahu ka عند الله جاه معظم فمن ناله يسر بأسلى وسيلتي لأنك شمس الأولياء وقطبهم ومنك أمثال النجوم دائرتي فللكل منهم رتبة ومكانة تعالى ولكن فوقهم بالمزية لأنك أصفاهم وأكثرهم تقى وأخفاهم طرا بمذهب سنة وأكثرهم علما وحلما وحكمة وأجرهم طلا بكل الفضيلة وأدولهم باعا وأجسرهم ندى وأعرفهم بالله من دون مريا سنجي لولو موي sa daraja ci yàlla daraja ju rëy la yow Ahmadou Bamba daraja ju kawe kenn du daam mii kenn du sëñ bi nii ñuy wax mhm. maanaam moom dong waxalu ko boppam des ko ko wax ci wet gu ne oh. mu ne ko ndax awliyaa ullahi yaay seen njiit ba noppi di seenub jant mhm. na ko xeebuma kenn talil kullu minhum rutbatun wa makaana ku ne ci am daraja xanaa duñ mer ndax rasulullahi salaa salaam ku ne yàlla yónni ko ba yàgg mu ne rasulullahi salaa salaam li kulli min al axyaari min jumlati axyaari martabatun lakki naa na ma ahmadun muxtaaru muxtaaru te taxut Moussa mer taxut Isa mer léegi lan moo tax boo suñ tuwaa amul morom ñu fa si tun lu tee Moussa mer ba Isa ba Ibrahima nag yi jëmm ñu yónni leen Yaxya ñu xar jëmmam ah Isaaq lim daj ah Moussa lim woote li ko Firawna woon ci àdduna te teewul yàlla na baax ngeen loolu mais rasuloo gën mais taxut ñu en yàlla wul biti ko daan ngeen sëñ diw baax nga baax ngeen baax ngeen baax ngeen baax ngeen mais Ahmadoo ñu ne mais nag yàlla nag pourquoi nag nga ne Ahmadoo gën léegi du yàgg Ahmadou du yàgg noonu yàgg yàlla فمن كل منهم رتبة ومكانة تعالت ولكن فقتهم بمزية waaye léegi lu tax loolu am li am naka asfaahum yaa leen gën a sell sharafat Cheikh Ahmadou Bamba wa salimi lil afati jumlatiha wa ma nifaaxan bi ba imadihi masaja amul benn tâche ni nit mu mel la xol bi mel la jëmm ji mel la jëf ji mel xamewul nag ba am bi jaaw bi mu feeñee jamono mësa def lu naqir yàlla wa leen a gën a sell wa aksaruhum tuqaa nag gën leen lekk a naan imtisaalu awaamir wa la lu yàlla dig nga def moo ne woon tareet juróom benn rëdd sama baaraam bi ci digg bi la yett yi laa seq ak yàlla yett yi laa seq ak jaam yi def na mosuma muy tere lu mu dogal neex na ma yett yi laa seq ak jaam yi mosuma cee tooñ kenn ku ma tooñ baal naa lu ma mbokk kon att xaw wa axfaahum turan bi mashabi sunnati nag yaa ngi gën a roy sunna rasulullah sunna sunna moom mën naa bari sunna financement sunna condition sunna mais sunna ilallahi bil qur'ani wa sunnati lati hadatni saraftul kulla wal qalba xaashan sunna su wax tal na rasulullah di doxee ngay dox saa tax tafal muxtafa la ko mbokk ma wax ca ndar muy sëñ Cheikh Coro moom sëñ Balla Coro moom sëñ Cheikh Balla me saa tax tafal muxtafa atta ka annahuma lawlaa nubuwat saa saw bàyyi ni xat na si jaar da nga koy roy di ko roy ba bu fekkoon ne yàlla yónniwul kii te mujj ko yónnee day mel ni benn ngeen yéen ñaar kon yaa leen gën a roy sunna sa rasulilaay koo dégg mu lay jaay sunna sunna jógul sëñ Tuubaa ci sunna waaye ba aksaruhum ilman yaa leen dëpp xam-xam duñ ko werante ku dul sëñ Tuubaa loo bind sa ñoom xam nañ ko man nañ ko ku am lim bind amul ku xam lim bind amul ku ko mën lu waaye alde alde aay aay ku ne mokkal naa xasida yëpp am. doo ko dégg de. naa bind yëpp am. xam naa yëpp am ku tu xam tur yi xasida yi bind amul ku mën xasida yëpp amul te ku ko mën a dindil ak wirgil amul te ñi gën a bari xam-xam fa fi kulli baytin min rabbika ibra biha yahuru aliful mutabassir ñi gën a xam ci yàlla ñoo daq a gàtt ci wenn baytam waaw kon ba aksaruhum ilman yaa leen ëpp xam-xam wa ilman gën leen a leer sëñ Moussa Ka ko tekki de waxeel man. waaw mu ne karaamaa ki xar baax ak wilaaya ki booti xol. Mhm. ku leen ma saam sël boo ku dul yow Serigne Touba na yoru yii nag te ràmboo rahmatullahi yàlla wet li ngay muñ te man koo faj amoon kenn Serigne Touba ku lay suuf daf laa réere boo gees suuf mu doyat dam uf nga soodaan ak bayaw bi nag Touba <laughs> waxeel man gën leen a la wet tey gaynde gu rusul morom wa aksaruhum ilma yaa leen gën a lewet gën leen a dal yore gànnaay te du fayu sëñ képp moo ne aslahu zahiri wa baatini maa man lil ada bila silahin xamaa nii saa xaftaan bi ma mel ci biti laa mel ci biir maa not saay doon te mu sab ci xalimaam doone paaka baa ngi doone jees si jàng fettuk sëñ gaa ngi amul maq doomam gaa ngi te moo not ñëpp te yokkoon moo leen gën a lewet ëpp leen gànnaay ak sorum ilma wa xekk ma nag ëpp leen xam-xamu connexion ci yàlla xekk ma wa ajruhum turran bi kulli fadila lu baax baax baax yaa leen gën a baax waaye wa ajruhum wa ak wanahum ba am nga rawaat leen fenn mooy yaa leen suti jéego waaw yaa génne mbakkee bari dem jeewal dem ndar tabb ci mbiix bi julli dem gabon Conakry gànnaar delluwaat ceen ñibbi si réew mi fa nga dem kenn dén waat wala mu baax kowe di parcours baa ngi ni wëral waat wala mu baax yaa leen gën a guddi jéego te bokkoo ak ñoom aw doxiin ndax yow foo jaar bakkan lay laaj wa ajzulhum nada yaa leen ëppi may ya wa ajzulhum nada yaa leen ëppi may li li gaa yi ñoor ba jàppe ko dara la sëñ bi maye palaas yi niy màggal la say gone toog palaas yi niy màggal la say gone fi ne léegi la ñuy tudd sëñ Tuubaa tudde ko nit ñenn ñi en naan wóore su ko wax fekk yow lu kee en ngir tudd ko tudd ko gën dana sëñ bi la gën a ndax sëñ bi daa bokkut ak moom kala sëñ bi hors série la hors série waaw marque bu ne ay la ca yàlla 124 mille anbiya wal mursalun ñaata ñaata malaaka naata waaye amul daam kepp rek donc mu ngi nii amul ku mu nuróo amul ku ni mel kenn du moom. dëgg la ndax bu ci ñaar amoon rek ñu ne ku bind nii ku bind bi te kenn moo tax mu sax ko bi kenn. matxu nabi yi qaada lii maa lam yura shakli wa fi daare ni shakli lam yura kon hors série la ku mel ni moo amul. hors mhm. waaye wa arafuhum billahi min duuni miriya amul werante yaa leen gën a xam yàlla <laughs> sëñ bi. kuy goddu sam ba mu fees di la mat bërki démb damay waxtaan ak genn kilifa ci ràbb gi sëñ bi joggi fii ci Ndakaaru doomi sëriñ Fallu ku baax rab gi sëñ Tuubaa joggi woon ci Ndakaaru gi en 1895 ñu tàbbal ko ci néeg bii mu joggi ci rab gi sar ba génn moo ne ba yàlla yónni Jibril muy xool xool ba dana ko xoolal ba xam loo fay fekk asabru wa shukru wa rida la ca gën a yéeme nee na ba bi muy ñibbi àjjana ji ko noppee gis góom ba wiir te weñ bu ju tangee di ko dàq boobu légatu màndarga ko te yàlla rek jaral la ko fa muy tànkam te yàlla kon wa aarafum billahi min duni miria yaa leen gën a xam yàlla te amul genn werante yàlla moomee nag huwa alladi lam ara gayruhu fi cheyin hada wa nawala amul lu muy gis ci kenn amul lu muy gis ci dara yàlla la gis ber ko lépp lu mën a doon yii ñuy jàngale di wax naan yàlla am na koo xam ne sëñ bi doo ko joxu barkeel mu ne ko bu bis yàlla moomee mu ne ko këfit mu jàppoon na yàlla bu yàlla jote ko bu ma yàlla moomee mu ne ko ah, këfit am na ko ñëw ne ko bu yàlla wéyee yonent bi mu ne ko ahmadu wéy yàlla néew rasul lay néew fa ahmadu néew fa waaye lu ñu xamul te xàmmeewuñ ko mooy jëmm may yàlla doxinu sëñ bi xanaa damaa jàpp ne ku bëgg a tudd yàlla ci di ko jaamu boo mënee góorgóorlu ba mën a nafila guddi yi sëñ bi dawul sëlmal yaqumu layaali raakian baxda sawmi yusalli imaaman bi ma la fi masajid loolu sëñ mu lay bu sa wax bu guddee ba mu kukk nit ñi nelaw mu kabar bu bëccëgee muy woor te moo jiite jàkkañ te ma gënoon a xam ñëpp xanaa kon doon na doy melokaan woowu ci nit ki digganteem ak boromam mu def loolu sëñ sëñ Mbakke bu sa muy wax fa kam min layaalin baataal xaw su taaliya ala suwari tartiilu bal kaw ni naa im léegi yàlla moom moo tax ba tey xool diggante bii sëñ Moussa Ka wax koo xam ku li mel ku dul rasul la yoroo melokaan di jox aji laaj di dimbalay dëkkaaleen du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir boromam di may ko ko bañ di woo ko ko foñ di neexal safoo ko ko soob ku dul kuy mooy boromam a sëñ bi xanaa dañoo amati xel Cheikh Mahamadou Lamine Baara doomam da koy tagg ba yàgg mu wax mu wax mu wax mu wax mu wax bay boo xam ne da lay won ne lu dul yàlla sëñ Tuubaa jëmu ci fillahi tu shiddatin qaasil fuaad ala man lam yakun min jamil xalqi muntasila nee na sëñ Tuubaa lewet ga ak nooy ga ak baax ga ku nanguut a jëfe ndigal la yi bokku ci de doo xam lewetu sëñ Tuubaa doo xam nooyuk sëñ sëñ Tuubaa képp nga mës a dégg ci àdduna ñun la koo mës sa dégg ñun mu tàllal ñaari tënkam yii mu tàllal tënkam lii ñu teg képp dërëm ba mu des Ahmadu loolu la jéyi mu alal mën a tegal noonu mhm. ku ñëw naa ay yitte mën a jëlal foofu daawul jël gaalu sëñ Tuubaa boo siin lu muy bari bari alxuraan a cay nekk hadiisu Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam lalub sëñ Tuubaa lu mu jekk-jekk loolaa cay nekk mhm. amul lu muy ci amul lu muy fag léppam du ko jëmee ci borom. ndeysaan ba noppi kon di di di ku ñëw di laaj. mu jox la. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye xoolal li gën a jafe mooy. Mm-hmm. di may ku ko bañ. kenn ku Sëñ Tuubaa alak amul. Sëñ Tuubaa alak diw kenn. te moo ne ak a mën a alake ah ku lay réere daf laa ku lay suuru daf laa réere boo gestu mu dee gestu rek bu ko defee nga yàqu. nee nga di noonu ba noppi mu jël alalam di la jox. nga di ko daw bu du la xëcc fi ne bari na ñoo xam ne li sëñ bi surxas seeni pos ba saa yu làmbee daj ciw xel la leen ko joxe ciw xel la leen ko joxe ndax li mu andi lañ xamul lu mu doon lu ne mu bàyyee leen ko jël lépp def ko muy boromam ku doxul digganteem ak yàlla mënoo xam problème mu sëñ Touba. fi ne sëñ Touba doo doo lan la jotaliwu ko ku mën a jotal ci àdduna yàlla rek ngay wax. ndeysaan bugguti dëkk. Mhm. wutiti tool. kenn du ne yaakaar naa ñii ngi nii Cheikh yaa ngi nii toog kenn du ne sama maama daan sàmm jurub sëñ Touba bi. Mhm. sama maama yoroon magasin sëñ Touba bi sama maama yoroon kalpe bi sëñ Touba bi yooyu yëpp ëmb sëñ Touba yàlla képp ko taxoon a jóg si naan dëgg la